l'actualité en continu gay actualité bi ñu fas yéene waxtaane li nga xamné ne donc di Sadio Kaiser Mané Flick Mané ak Henri Camara mi daal di wax ci li nga xamné moy donc situation Sadio Mané du côté donc du Bayern de Munich incha allahu rabi mais laata boobu gars leen wax na ngeen wëy di abonné agrandir la famille Sport TV aussi bës ci cloche notification pour jox vidéo yi en exclusivité ngeen koy daal di jot ki nga xamné nak moy donc image bi lañ leen di won muy image du jour ki nga nag ki di donc Iliman éliminé éliminé Ndiaye ak doom bu jigéen nak li ci match bi passé le contre Wigan Iliman Ndiaye mi xam mom lañ defoon op du match ki nak di donc Didier Drogba Didier Drogba nee ki nga xam mo nekkoon nak sen entraîneur di Matteo da don don wonal li nga xam moy chaque fois bu ñu amee adversaire li nga xam moy meilleur buteur nee na mu wan leen nag Angleterre ñeen ñoo nekk meilleur buteur mu gis ni ay 14 15 dañ am mais nee nak mu won len Barça fek ñu wara dajé dajeeg Barça Ligue des Champions ñu gis ay ñom ñi nekk 3e meilleur buteur yeeg yoy na donc ay ñom Xavi di amay 14 buts ay ñom Alexis Sanchez di amay 15 buts nee bañ la woné Messi Messi 63 buts la am ñu don xoolante naan ni nee mu dafa mujjee woon photo sax di xol ndax li dax dëgg la finalement nag année boobu Messi 91 buts le mujjee dougal gars ñaar ñi nga les deux meilleurs arrières latérales du monde hein, au 21e siècle Marcelo ak Alves gis né nombre de matchs nombre de passes décisives nombre de buts double ñu dougal et tout donc gars c'est exceptionnel ces deux Brésiliens qui ont marqué le football hein, donc ci el euh, yi gars mission plus 15 hein aujourd'hui Barcelone dafa bëgg gagner euh, matcham bi nak pour mëna a ñi nga xam donc Real de Madrid ay poñ yu bari bari bari dal assurer terminer champion donc de la Liga espagnol même bu fekkee ne des na dix journée mais pendant ça temps nag Rudiger nee na en champions vers el mirdo el mirdo en al en la cara de los rivales ah moom nee na gars yi bu leen bu ñu gisee adversaire bu ñu bu leen xoolee dañuy gis ra day gis tiitaange suñu war a dajeeg Barça ba dajeeg Real plutôt ah donc loolu daal ki nga xam mooy Rudiger wax gars yi nag ñi nekk Espagne jégalu ci li ma ko diiree noonu ah. mais xam naa espagnol yi nekk fii dañ ma corriger ki nga xam nag mooy Rudiger aussi nee na Chelsea bi mu xamoon bokkul ak Chelsea bi ni nee différence amna quoi Chelsea bobu mo gënoon combattre fi tout mais teewul Ligue des champions lañuy dajé pendant ce temps nak Karim Benzema Benzema gars yi nag nee ah, jot na proposition bu jóge won ci Arabie Saoudite moom dal di koy bañ ne du dem ci Arabie Saoudite day des ci Real fofu dal la bëgg jouer li nga xam ne mooy ëpp ci liko ko ci ay carrière am loolu dal la wax pendant ce temps aussi bonne nouvelle pour le Real de Madrid ak nga xam moy donc ñi di wa Endrick Endrick mi nga xam ne nag gars actuellement. mi ngi nekk si di retour en forme ah, donc dafa dal di duggal euh, but Endrick nga xam ne jëna duggal ah, donc mom mi nga xam nak Real loolu bëggoon ne Real ñu ngi préparé rapatrier boy bi teg ko ci benn encadrement bo xam ni Vinicius euh, tambalé woon nañu bëgg mu tambalé gis ngeen Vinicius donc début bi dafa xawoon metti mais après légui il il a explosé Alejandro Balde nak fi ni bientôt mu officiel li nga xamné nak moy contrat bi ko wa Barça bëgg proposer muy nekk contrat bo xam day dem ba 2027 pour l'arrière latéral espagnol Alejandro Balde pendant ce temps la Premier League gars dina neex gis ngeena ah, Manchester City ak ñii di waa Arsenal hein ah, li di juróom-benn poñ rek mo leen daal di séparé li des ci match nak dina nekk match yu neex neex neex plus personne n'a droit à l'erreur ni ko gars di waxee ki nga xamné nak également moy donc kii di Adrien Rabiot Rabiot nak actuellement mom gars yi euh, bëgg-bëgg mooy dem ci Angleterre la bëgg dem ci Premier League mais fi mu club yu mel ni Paris Saint-Germain ancien club am ñu ko daldi euh, yëndu mais aussi wa Juventus ñom yaakar nañ daldi koy téye fofu motax waxtani tambal nañ ko ki nak du Olivier Giroud également hein, bientôt de manière imminente léegi ngeen dégg ne il a prolongé du côté de Milan AC parce que accord total amna donc il va prolonger d'une année supplémentaire ba 2000 24 le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale de France qui est Olivier Giroud qui est également dit Diaby hein. Diaby Ramgenko il est passé par le Paris Saint-Germain fallait lañ ko et tout mu nekk Bayer Leverkusen actuellement on a bi aussi Paris Saint-Germain da ko rapatrier mais attention aussi y a ay club yu est Angleterre, Angleterre est Premier League ak aussi ca Italie ak a bëgg euh, récupérer qui est di Franck Leboeuf nee a dit ki nga xam ne Hakim mu doon may moom damay euh, Chelsea parce que Akim content, il n'est pas heureux nee qui bu euh, Maroc day nek le meilleur joueur ou l'un des meilleurs joueurs au monde mais bu ñëwee Chelsea day fay ah. donc motax tax da koy conseil mu dal fa jógee dem wuti fo xamné da fay gis boppam kii rek également di ah xam ngeen ko Hernandez le joueur du Bayern Munich pas pas l'autre Hernandez du Milan AC mais son frère mom nak reprendre l'entraînement entraînement yi te keroog seetaan na match Bayern bi mu mujjoon ci tribune la nekkoon mais fi bientôt ce sera une bonne nouvelle pour le euh, Bayern de Munich Bayern Munich nga xamné également ak yenen programme yi nga xam mom nga war a mën ci semaine bi ni ah ce sera explosif mi ngi à partir de ëllëg Inshallah, allah nga mën sétane jogante yi ngeen di gis donc diggante euh, Bayern de Munich ak euh, ñi di Manchester City Real Madrid également ak Chelsea Sadio Kaiser magnifique Bambali champion d'Afrique Mané joyeux anniversaire pour Sadio Mané bi il a marqué hein donc il fête ses 31 ans marqué na histoire du football actuellement mi au niveau du Bayern de Munich Sadio Mané qui aura tout gagné il a remporté euh, li Coupe d'Afrique la première de l'histoire du Sénégal remporté également la Ligue des Champions nek aussi Ballon d'Or ah dem plus ci club bi aujourd'hui mooy Bayern mi nekk l'un des joueurs le mieux payé actuellement et le meilleur payé même au niveau de la Bundesliga de leen woné photo bo xamné ne gars yi photo bi ah gis ngeen Moussa Konaté Sadio Mané ak Cheikhou Kouyaté ndeysaan yàgg na lu yag deug la dañu yag galère ndo dañu yag carbeto ndo ah, gis ngeen gars yi mi ngi noonu ah, Sadio Mané qui a résisté autant comme on le dit gars pour aujourd'hui arriver au stade bi nga xamné fofu foofu la toll Sadio Kaiser magnifique Mané à qui nous souhaitons bien entendu euh, lii euh, consécration ki nga xamné également moy Henri Camara wax na ci situation Sadio Mané Henri Camara né nak Sadio Mané actuellement actuellement situation bi mu nek nak jour bu nek jar nga ci mom mo ci wara meuna mën bopam génne c'est à lui donc de faire le nécessaire pour génn ci euh, situation bi parce que Sadio Mané c'est un grand joueur mom nak mo wara a trouver mental né attaquant nak non la bo dougal gars yi dañuy critiquer né nekk en forme mais bu dougalaté fi léegi ngeen gis ne donc dañu ñëpp ne wax naan Sadio Mané est de retour na loolu et qu'aujourd'hui il fait confiance au talent de Sadio Kaiser magnifique Mané bi nga aujourd'hui pour man c'est le moment ou jamais parce que ñi ngi joué lii élimination directe te loolu mën Sadio Mané là en Ligue des Champions nous koy ñaanal mu réussir quoi avec beaucoup de de de confiance et de consécration gars c'était les informations que je voulais vous donner woy leen di like woy leen di mais aussi bës les lien bi ci dem abonné ci Baba Show dans une heure de temps maximum maximum la dugal vidéo bi ci événement naari léegi chaque jour deux vidéos lay dugal sport ak histoire gars on avance ensemble dans la magie e-sportive TV gars yi su baaxee ci su ci la